Abdou Diakhaté wala Abdou Diakhaté Saliou mi ngi judd le 17 mars 1990 ci dëkk bu sell bii di Touba mi ngi jàngee alxuraan ci daari Serigne Saliou Mbacke ci atuk 1999 jàpp 2010. Abdou Diakhaté Saliou li nga xam ne mooy alxuraanu yàlla ji mën na ko tari di ko bind te ko xool ci atuk 2012 ci la commencé jëngu ci wàllum commerce ak di importer ak yu mel noonu Abdou Diakhaté Saliou mi ngi dugg ci politique ci atum 2012 nekkoon parti bi nga xam ne moom mooy parti Abdoulaye Wade bi bu PDS Abdou Diakhaté Saliou comme ni ko ñëpp xamee doon ndaw bu gëm boppam ku am fit waaye it ku yàgg gëm ne doomu daara yi dañu am wàll ci li nga xam ne moom mooy wàllum politique ba tax mu ciy xeex guddi ak bëccëg. Jaxate Saliou nekkoon itam mouvement pour le convergence du Bawol le 16 octobre jiite mouvement bii di peuple pour le développement progrès du Sénégal démocratie égalité progrès Abdou Jaxate Saliou mi ngi cosaanoo Bawol Kayoor bépp leeral boo xam ne bëgg nga mu gën a yaatu mën nga ko xaar ci janoo bu muy amal Ndeye Thiam Saliou ci seen émission Ndeye Thiam ak koor gi feexal ngelaw li Ramadan weeru alxuraan euh, salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi suivre seen site internet bi di murit point info ginnaaw bu portrait bi jàllee nag euh, comme ni leen ko taamu di defalee saa su nekk yéen ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou tey nag ñoo ngi fii nga xamante ni si moo di pencum Paareen fas yéene fee fekk si ki nga xamante ni si mooy suñu invité di Abdou jaxate Saliou balaa ñuy xuuse ci waxtaan bi rek dañ koy bàyyi mu présenté wu ak mbokki téléspectateurs yi koy seetaan. Euh, jërëjëf soxna Ndeye maa ngi lay nuyu di la siyaare. di siyaare waa Mouride info ñëpp di siyaare tamit ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew di nuyu waa Sénégal yëpp sama présentation nag xam naa jërul muy sori abdu Diakhaté Saliou di doomu Touba di yëngu ci langue politique <coughs> jiite mouvement bu ñuy wax MPPS muy le mouvement di peuple pour le progrès di Sénégal démocratique égalité progrès eh, nga may ñu occasion sax ñu nuyu leen bu baax. ci weeru kooru sell wi ñu nekk di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay ndax liñ naan peccum liir su neexee nday jaatee ci waggee bu du ak ñoom xañ na duñu toog fii di wax li ñuy wax ak génn di lépp ñoo nekk ci ginnaaw daal ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp jërëjëf ñi ngi lay jaajëfal Abdou Diakhaté Saliou présentation bi am na solo torop ah, ñi ngi ci weeru nga ngëneel nag weeru màgg Ramadan Mubarak la ñu wax ah, naka ngay dundee koor gi en tant que responsable. moom xam daa bokk ci faratay lislaam ndax suñ borom dafa wax ne dama leen a sant ngeen woor niki ni ma ko sante woon ñi leen jiitu woon yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaam kama ne ala allazina min xablu laalakum tattaqun yàlla nee na digal naa leen ngeen woor niki ni ma ko digale woon ñi jiitu woon mu bokk ci juróomi ponki lislaam yi loolu nag ni ko jullit ñëpp di dunde lañ koy dunde weeru ngëneel la weeru promotion boo xam ne bu ñëwee lu mu fekk nga ko daan def benn war nga kaa def ñaar lu mu fekk nga ko daan def ñaar war nga ko def ñett di weeru ngëneel woo xam ne tamit li ci suñu borom dële bari na ba tax na mboolem jaamu yàlla yi moom képp lañ ne moom moo ci amul ngistal mboolem jaamu yàlla yi moom képp lañ ne moom la ci yàlla di fayal boppam kon koor moom di sant yàlla rek ci bàyyi gi mu ñu fi bàyyi bañ fekkee ko ba mën koo dundal ndax am na ñu mu fekkoon daaw fekku leen fi ren ñuy ñaan yàlla ñoo ñu suñu boroom jéggal leen te yërëm leen. te woyefal suuf seen kaw ñun ñu fi fekk yàlla may ñu wér ak kattan goo xam ne ci niñ ci duggee ci bismillahi rahmaani rahim ñu terminé ko ak alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. jëf ci yooyu leeral am na solo trop ndax mën naa xam ba tey euh, waxtu julli bu jotee en tant que responsable nekk père de famille bu waxtu julli jotee jumaa ji la gën a jege ngay dem julli wala da ngay toog ci biir kër gi nga jiite njaboot gi. waaw ñun d'abord ay nit daara lañ ay sëti lañ l'islam moom ku xam ku ne. xam ne suñu mbir la bu dee ci wàllu julli moom lu ci ëpp ci suñu biir kër lañ koy defee ñun yàlla dogal na naafile gañ fay def sax man maa koy taxawee euh, sëñ bi génn njaboot gépp génn ñu taxawee ko ndax loolu la jàngal te ci loolu lañ juddu ci moom lañuy ñuy xam itam daanaka sax lu ëpp ci ñun lu ñu défendre diine la ak daara kon ñun ay niti daara lañ am amaa nag dem ci jàkkee ak jumaa yi baax na waaye ku ko mën a dundale sa kër ak sa njaboot ci ni ñu yaree ñun. loolu moom li ci ëpp loolu la ñuy def moom ci biir kër gi lañ koy dundale yàlla dogal na sax man maay taxawee kër ga naafila gi waaw ak yeneen ak yeneen. Mhm, jërëjëf ci yooyu leeral am na solo mbokk yi yéen ñi nga xamante ni si yéenay suivre seen site bi di mourides léegi rek yéen a ngi ci seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou Abdou Diakhaté Saliou ginnaaw bu loolu jàllee ñu dugg ci li nga xamante ni si ci nga yëngu lan moo la booleeg politique. waa xam nga politique euh, dafa bari kenn ku nekk ak gis-gis bu mu ci am. man à chaque fois dama koy wax damay wax ne lislaam bu ngi ko xaajoon ci digg bi benn pàcc bi mooy politique su fekkee définition politique mooy fexe ba sa askan di lekk ñuy naan ñu nekk ci sécurité ñu leen di faj ñuy dem ak a ñëw loolu nitu diine sax moo ko war a taxawee man bi may def politique maa ngi fàttaliku dama naan toog di kaas rek waaw ñun waa daara ji lu tax dañu boole ci yëf yi nangam nangam ginnaaw gi ci laa def ay gëstu ma méngale. ay poste administrative administrative yu bari ma wax alquran gisin bim ci am ak solution yim ci am lu mel tay état de droit ma indi wa katabna alayhi fi anna nafsa bi nafsi wal ayna bil ayn ila al aya lu melni ne emploi du jeune lu melni aménagement territoire yu bari ñu def ci ay gëstu ba binnon nañ ci lo xamne man 12 pass lolou suma fatali ngi nek magal Touba 2016 alors ñu gis ni tamit nit ki comme bu démé université ba génn day ñëw né man journaliste la comme yow wala kenen wala mu ñew mu ne ingénieur la wala mu ñew mu ne docteur en droit la mu jema servir réewam ci lolu ñun wa daara ji nak kon waruñu tok croiser la bara li ñu jàng ñun tamit ci daara ji ci walu administration buñ ko waxee nak ñu bari dañ nan ah, daara lu ñu ciy administration man de daara yi ma nekkon muy daara Serigne Saleh mën na wax ne administration ñun fa lañ ko jangé parce que man bi may nekk ci daara ji Serigne programme bi mu ci daara ju nekk mu am ku yor mi kok man nañ ko tuddé ministre enseignement supérieur mu am ku yor daara ji man nañ ko tuddé président de la république mu am ku yor jëwriñu neegi yi man nañ ko tuddé ministre de l'intérieur moy sam xalé yi nangam nangam mu am ku yor kok tool yi kooku man nañ ko tuddé ministre agriculture moom mooy xam fiñu wara bay ak fuñu wara bay tool sangam ñaata kilomètre la ak nangam ak nangam loolu lepp ma dund ci ba mag nak xam niñ ma yare ci jaamu yalla ak liggéey ma ah, pourquoi pas man tay ma ñëw servir sama réew te politique dama ka jappé tamit li alcorane di wax ni nit ñi am na ñoo xam ne du ñu faatu mooy bu ñu dundoon ba jóge fi dañu bàyyi seen empreinte ci société bi tey man gëm naa ne bis dina ñëw suñu sët yi naan ah ñoom suñu maam diw ñoo taxawoon ci parlement bi keroog xeexal ñu diw ak diw ak diw xeexal ñu luwaa sàngam ak waa sàngam ñoo tax nangam ak nangam amu fi ñun loolu mooy suñu yëg-yëg ci politique waaw loolu moo tax ñu ñëw ne ci lëjj boole kook nag am réew bu ñu ne à 95 pour cent musulman te loolu bi ñu ko dee wax. fekk na ñun ñii ñëpp juddooguñ amaa suñu doom calculé wuñu leen ñun suñu bopp sax wu ñu tey bu ñu demee ba réew moomu tey ci suñu atte yi nga xam ne moom lañ jox ci suñu réew mi li ci ëpp arrangé wul diine yi ba pare nit yi diine yi bëgg a toog rek di seetaan jàpp nañ ne loolu kanam la jëm te jàpp nañ ne ñun tey man nañu dem ba lu ëpp ci loolu ndax à chaque fois ma wax ko wowuma waa réew mi ne kaay leen ñu attewoo ci diine waaye atté yi nag war nañ ko xoolaat ba mu arrangé waa diine ji comme ni mu arrangé ñu jërëjëf ci yooyu leeral am na solo trop ndax mën naa xam kan mooy sa leader kan nga àndal ci politique xam nga ñun mouvement lañ puisque man bokkoon naa convergence di bawal convergence euh, mouvement convergence di bawal bu Mamadou Lamine Baaraloo man ak Moussa Seck ak Baaraloo ñoo ko créé woon Baara actuellement mi ngi ci Xalif Sall Moussa Seck moo créé benn mouvement bu ñu wax urgence mu ngi ci Macky Sall bokkoon naa tamit sénération di congrès bi may doog a def politique Karim Wade laa gënoon bëgg euh, ma nekk ci PDS di lëj-lëj yi di jàng 16 euh, octobre 2016 ñu créé suñu mouvement bopp man ak sama ay xarit ak suñu waa koñ ñi ma bokkal gis-gis maa ngi leen nuyu en passage ñoom Seer Amar Ahmad Samlo et cetera euh, mouvement boobu bi ñu ko créé élection législative 2017 ñëw. ñu bokk ci coalition bu ñuy wax beneen baat bu bees docteur Abdoulaye Niane dirigé woon ko on est à 14e dans son 47 obtenir lu mu gàtt gàtt 13000 et quelques voix te organisation bi ñu defoon ñu ngi ko defoon ci 3 mois avant élection boobu Pastef ñëwagul boobu beneen baat bu bees la boobu Abdoulaye ñaan moo dirigé woon tête de bi biñ ci jógee ñu nekkaat suñu mouvement di doxal Abdoulaye ñaan te parti Teranga Sénégal di doxal biñ ñëwaatee ba ci élection législative présidentielle yi. comme ñun mouvement lañ te yàgg nañ liggéey ak docteur docteur allié waat ak Ousmane Sonko Pastef moom moo ñu woon nañu kaay leen ngeen liggéey Pastef dox ci tamit ay tànk yu mucc ay ba jàpp suñu loxo ba boole ñu ak Ousmane Sonko mu wax ñu wax ñu xool tamit xam ne coalition la woon boo xam ne suñu moroomi ndaw yi rek ñoo fa nekkoon te ña fa nekkoon tamit bokk nañu ak ñoom ay conviction politique puisque rupture lañ doon woote boo xam ne total boo xam ne li ñu doon xeex ci réew mi lu ci ëpp fekk nañ ko foofu ñu koy xeex ñu bokk ci coalition Sonko président Euh, yàlla dogal na bokkoon nañ ci ñi nekk ci coalition bi tedd fii mën naa ko wax parce que ñun ñoo nekkoon chargé des élections et nouveau local élections yi bi mu passé ak léegi nag ñu ngi continuer di liggéey ci coalition boobu ba tey parce que suñu coalition bi tasul kon mën nañu wax ne MPPS mi ngi ci Teranga Sénégal MPPS mi ngi ci coalition Sonko président. naka ngeen dundee élection yi nga xamante ne si moom lañ passé muy présidentielle yi. ak seen renouveau bu bari bi nga xamante si waa PASTEF moom lañ fi def. waaw élection yi. Euh, ni ko Sénégal yëpp dundee benn waaye bu fi nekk jaay nit ñi doole def lu ko neex euh, puisque bari na nag Sénégal yoo xam ne da nga ma may occasion sax puisque élection yi ba tey def naa ay émission sax nag waaye comme tey nu ñu jëlee temps ni war a émission gëj naa ko def à part bi yi passé ñu def ay analyse yu gàtt rek ci yenn organe de presse yi élection yi gis nañ ne ñu bari boo ne tey Macky Sall dafa sàcc élection yi dañu naan Sénégal kenn mun mënut fi sàcc élection nangam et mais mën naa leeral ci process électoral bi nu mu demee parce que man doon sous préfecture chaque mardi di dem réunion di xam li xew Touba rek gi ñu nek tay nga xam ne ñun ñu xam ne ci élection yi passé ci processus électoral bi 29 411 duplicatants Nous xam ne dañu am pièce carte d'identité nationale ba une ñu carte ay la leen il faut ngeen seen carte bu imaginons, imagine ko feneen lay liggéey mbuur wala feneen ba vingt élection mu ñëw war a voté dem rang ci biro de vote ba vote jot ñu ne ko yow kat mënoo voté parce que duplicata nga am te loolu nombre bi muy vingt neuf mille quatre cent onze mille sans compter ñi nga xam tey dañu dem tëj euh, kii bi commission électorale bi ñu dem bindoo police ñu defal leen non inscrit sur fichier électoral te loolu Macky Sall bi mu ñëwee ne dañuy sensé suñu carte d'identité yi def ko biométrique def nañu dañuy cumuler suñu carte d'identité yi. xam nga tey dañu waroon a joxe carte d'identité police ku bëgg carte électeur bu comité électoral bi ubbee nga dem bindu carte électeur wane na man citoyen laa bu bëgg a voté maintenant nag su fekkee état bi moo ñu proposé nañu damay changé carte d'identité yi te léegi dama koy cumuler ak carte électeur yi jàpp naa ne foofu amuñu woon benn droit di tëj comité électoral yi nga gis ne dañu gaawantu tëj comité électoral yi te nit ñi mënuñu ñàkk pièce d'identité puisque dañuy dem ci banque yi dañuy dem di voyage yi dem a ñëw mënuñu ñàkk lu ñu leen identifier nit ñi dem di bindoo police y a beaucoup personnes yoo xam ne Touba voté wuñu te non inscrit sur fichier électoral te boo demee ci fichier bi fekk fa seen tur ñu defal ñu huit nouvelles centre bureau de vote waxuma la bureau de centre boo xam ne lu mu dee dee day am 14 bureau ba 32 bureau centre yooyu tey nit daan voté tey si ponso euh, al azar jóge mbëbëreel ñëw ba al azar ñu ne ko ay la yéwén dañ laa jege si centre bi moo tax mbëbëreel tey am na centre demal nga voté foofu te pièce su carte d'identité am al azar bureau de vote numéro 21 moo ci nekk kooku tamit kan la woteel ak fan la wotee kon nit ñi il faut mu leer leen li tax ñu naan ñun élection yi d'accord ñu ci parce que processus électoral bi la Macky Sall saboté tayé tamit suñu euh, électoral Touba ba mu baissé wu trop mu jël électoral bi nga xamné mom moom moo koy gagné muy ay Fuuta ak feneen ak fenen def fexé ba xalé lu mu tout tout gis nañ ko ci réseaux sociaux yi ñu gis leen ñuy voter ak lenen ak lenen alors léegi euh, li tax tay ñu annoncer 58 ñu ngi ñu doon sërëxal dégg naa sénégalais yu bari ne lu tax defoo leen recours ay la yoon ñun suñu defee recours 58 pour cent fuuta gi ak ay euh, nangam nangam seen dëkk yooyu baakeel war a soog yi fi ñu doon wax naan xale yi dañu doon voté foofu même bu ñu ko annulé woon xam nga 1 pour cent foo koy xamee parrainage bi ñaata la ñu doon laaj 1 virgule 0 nangam pour cent 65000 fois foofu mën nga faa génne 65000 fois 3 muy muy ñaata muy 3 pour cent ñu ne ñu annulé nañ fee lan la ñuy wax. kon amul woon sens ñu def recours lolu moo tax opposition bi defuñu recours tey dañu am occasion pour leeral Sénégal yi que ne Macky Sall mii fi toog dafa def lu ko neex ci élection yi. léegi nag non loolu dafa leer Sénégal sax boo leen waxee dañ naan kii kenn mënu ko dara nangam na su ci suñu gox ñu ñun fi Macky Sall du fi gagné tant que fi suñu ruug yi mi ngi dem ak Macky Sall du gagné Touba. li xañ li xañ Macky Sall naa ne kon ci yéen la. 2012 ba léegi ñu ngi ko koy ñu ngi koy def 2012 ba léegi ñu ngi ko koy dikk te ñu ngi koy def xam nga loolu mooy l'essentiel. non non xam nga Macky Sall mën na am victoire feneen mais ñun politique nañ bàyyi loolu naan ay Touba dong fëlut wala nangam nang gis nga Touba. ni Thiès amee droit choisir Idrissa Seck muy seen candidat Macky Sall am droit Fatick choisir ko muy seen candidat Ousmane Sonko am droit Casamance choisir ko muy seen candidat Touba noonu la amee droit choisir un candidat. Macky Sall mënut a gagné comme ni nga ko waxee ba pare ngeen jël victoire bi jox ko ko ngeen bàyyee ko ko lu waral loolu. xam nga Macky Sall gañul Touba gañul sax yeneen régions yi ndax man boo xoolee li mu am Touba li mu am Dakar. soo ko boolee ak waxuma la quatre candidats yi de soo ko boolee ak deux candidats yi topp ci moom muy Ousmane Sonko ak Idrissa Seck li ñu wax ballottage day am même bu leen gañee dakaar soo boolee ñoom ñaar li ñu am dañu nekk devant Macky Sall kon Macky Sall gañul élection yi moom dèjà Sénégal nag xañ na opposition bi néew na doole parti pouvoir am na doole ak armée bi yeneen Macky Sall def lu ko neex mais Touba gii ñu ne. Touba balaa li tax Macky Sall du gañ Touba. du affaire murit ak leneen ak ñu bari dañ naan murit yi du ñu bi passé. nga xam ne moom lañ néewal doole barki démb murit la état wu Macky Sall ay murit ñaa nga fa di liggéey affaire du affaire du tariq Macky Sall mësul immigré depuis 2012 ba tey jii may wax ak yow lu dul benn escadron Touba léegi ñi ñi seetaan nag su fekkee jàpp nañ ne Macky Sall dëkk bu toll ne Touba nekk deuxième ville capital économique du Sénégal à part Dakar mu ëpp ay population yu fi yeewoo mérito na 2012 ba léegi mu immigré fi benn escadron di ko gañe nañ ñu wax waaw. mouride yeeg tijaan yeeg lolou c'est une faux débat mm-hmm. état wu Macky Sall ay mouride nga fa occupé ay poste administratif di liguey normal mm-hmm. Macky Sall mi ngi fal ñu mu fa na Touba nak dafa gisul bopam ci nguru Macky Sall li fi Ablaye Wade def ay la bu ko fi defee rek nit ñi amuñu ma Samba ak ma Touba non xam nga lolou ay wax la xam nga tay bu ñu demee naan Macky Sall def na fi ay 10 milliards d'assainissement et cetera te bu tew nawet bii jàll li ñu souffrir fii Touba mosuñ ko souffrir bi ñu juddoo ba tey loolu ay caaxaan la gis ngeen ñun bu ñu nax suñu bopp ñun Touba lañ dëkk te Touba lañ am te Touba mooy suñu capital te Touba li sëñ Touba ñaan ci Matlabul Fawzayni muy mu dem ba mel ne Makka ak Medina ñun dañu am droit pour participer ci sayir si baatin bi moom am na ndax sëñ Touba ci njaareem am na mag mu ñuy wax sëñ Mandumbe Kebe nee na ko xam nga lu ma wutalee gaay yàlla yi mu ne ko dee mu ne ñoom dañuy ñaan ba pare yàlla soog leen a may man nag yàlla danaa ma yàlla may may pare ne ma ñaan ma nga xam ne neexitu ñaan wi sëñ tubaa di ñaan la yàlla soxla sëñ tubaa lim ñaan ci dëkk bii dana am léegi saa yir si nag ñun dañuy fexe ba bokk ci ñi koy def kon Macky sàll tey bu ñëwoon ci dëkk bi def fii li mu fa war a def sëñ Bla toog na fi ne ku war ko wareelu Abdou Diouf war ko sëñ tubaa te pourtant li tax mu def ko mooy daf ko justifié ci ay forage ci ay tali ci ay neneen te bu dee forage sax ndox mi ñi doon naan mën naa ne moo ci gën a néew lu naan wala moo ci gën a néew lu bu bëggee gañe dëkk bi na def comme ni mu def yëpp ni mu def Fatick bu ko defee Touba di ko gañe. merci merci leer na macha allah mais sànq da nga wax ci sa biir yi wax nga ne Karim Wade nga mas doon jàppale lan moo la jëlee PDS indi la ci Pastef. ci Ablaye Niang. non non bi may doog a def politique laa la wax Karim laa bëggoon ma dem bokk génération di congrès muy PDS. PDS ba ma fay jugee déwuma directement. ànd ak Ablaye ñaan wala nangam damaa demaat ci mouvement bu ñuy wax convergence di Bawol puisque man dama yàggam ambition demal sama bopp kandaa may wéeru ci kenn bi ma jógee convergence di Bawol ci lañ créé suñu mouvement bopp depuis 16 octobre 2016 nekk ci di liggéey docteur allié lañ nekk ak moom mu nekk nag ku responsable ku ñu respecté ku nawloo suñu xalaat ku nawloo suñu kàddu à chaque fois mu wooñu ne ñu ñëw leen ngeen boole mouvement bi ak parti bi yépp ñu structuré ko defar parti boo xam ne Touba gii lay dëkk ñun kilifa yi nga xam ne jàpp nañ ne mën nañal dafa dara Touba ñu ànd ci liggéey ci te loolu ñu ngi ci te yaakaar yàgg du yàgg dara yu baree bari dana gën a leer incha allah. lan mooy sa ambition ci politique. institution yi gën a mag di des di def di dindi te li may def di dindi dëppoo ak sama bëgg-bëgg population. jërëjëf Abdou Diakhaté Saliou kàddu yi am na solo torop lan mooy sa mot de la fin. site bii nii boo ko fàtte yaakaar naa bokk na ci site bu ma njëkk a lancé ci tuuba sama toos bi ko moom maa bañ a tudd turam eh, bu ma juumul sax weeru koor la woon comme nii bi ñu doo a sos suñu mouvement bi ñu ñëw def fi émission boo xam ne ci la ñu bari xam ñu ci moo tax ñaare saa bu ñu ma woowee lu ma nekk dama koy bàyyi ndax coloré dafa am solo ci nit nit bul fàtte la fal parce que boo ko fàtte li la fal day yomb nit ki foo mën a toll rek xamal la la fa tollal maa ngi sant bu baax kon di gërëm di leen ziare bu baax di ñaan site bi dem ba nekk ci télévision yi gën a mag ci àdduna bi te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ndax wàññi boo gis rek ci benn lay commencé ndax euh, yaakaar nañ ne bañ ñuy njëkk introsé dañuy jox micro jàpp ñu woon ne danañ agsi fii ñun kon tey bu agsi fii xam nañ ne leneen a suñu kanam ñu ngi ñaan yàlla may ñu fekkee ko ñun ñëpp te tal ko te mën ngeen jëf mbokk yi comme ni ngeen ko waxee woon rek ñu ngi remercier ki nga xamante ni si mooy suñu invité Abdou Diakhaté Saliou yombal na lépp macha allah dara jafewul noonu ngeen koy ànd ak ñun saa su nekk ci seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou ñu leen di jox dig daje suba ci beneen invité incha allah rabbi merci